asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Galaxy TV ginnaaw ba ñu nuyoo rek ku nekk ci turam ak santam ñu amaat mbégte ak contentement di ànd ak yéen ci seen ay programme comme ni ngeen ko gisee nag ñoo ngi fii ci Tivaouane ci gàmbu gi xam ngeen ne rek ñun Galaxy dañuy topp lépp loo xamante ne nii événement la ba tax na comme ni ñu leen ko defalee ci burdu yëpp tey ñoo ngi fii ci Tivaouane ci tëjitee burdu bi parce que ne ànd ak yéen ba ak gàmbu gi jeex dinañ leen indil ay reportage ay micro-trottoir mais également dinañ dem ci garage yi ak lépp loo xamante ne nii dafay am rapport ak gàmmu gi dinañ leen ko indi bu baax a baax donc chers téléspectateurs restez connectés ici à Galaxy TV c'est ici que ça